et voilà lii la ñu Macky Sall yéene lii la ñu Macky Sall indil tey ay député saagakat ay député yu naan dañuy def buzz ay ñun lu ñu def yàlla ba mérité lii ah du toll ni assemblée nationale deuxième institution fu ñu war a défendre réew mi kaasal fa réew mi nga ñëw fa tey ñu indil la fa au lieu nga wax li nga war a liggéeyal réew mi nga war a wax li nga war a xeexal réew mi nga taxaw fa naan ëgën ay maay def buzz ay saagu ëgën chut mais soriwul le président de la république dem moko fal ni Macky Sall moko def député ni député Benno bokou Bakar. ay Macky Sall kan ngay respecter askan bi Macky Sall kan ngay jox sa askan Macky Sall yow ki ki nga tek suñu kaw ki nga xamanteni ni na askan bi ba tay di saga ay doomu gor tay askan bobu mokoy fay salaire mokoy jox carburant mokoy jox auto mokoy dundal mokoy jox dekuway ay waay au Sénégal du jamais vu ci histoire du Sénégal du jamais vu man sama xol du tay métti na lii kuko ko ku ko wala kuko metti luul wallahi wallaahi bëggoo Sénégal defetu Sénégal ni. ana léegi soi-disant mag ñi fi wax doon taxaw fi di wax naan ay ndaw ñi saga ci réseaux sociaux yeeg ay ndaw ñi xaw bu len def li bu len bu len wax li bu len wax lu ñaaw léegi am ngeen li ngeen wara wax nak président de la république tay moo ñu falal député kat député waxkatu lu ñaaw. mu ngi nii am ngeen li ngeen war a wax fexe leen bu leen doon ay naafiq non lii lii lii lii waaye nag man du ma ci sori sax damay wax ak samay nawle sénégalais gën leen a yeewu lii joxuñ ñu cër lii xanaa sax mala booy diri sax di nga ko jox cër di nga ko respecté astamaan ak ñun askan bi ñun ay nit ñu fal la teg la fii nga jël suñu ay institution di fa teg ay saagakat des jeunes nekk fi jàng am seeni diplôme di chômer nga war leen a jël teg leen les les hommes qu'il faut à la place qu'il faut tey nga indil ñu saagakat bi teg ko sunu kaw waxatu lu ñaaw teg ko sunu kaw muy lu metti muy lu doy waar lu fi mën lu ñu mësul a gis bi Sénégal doonee Sénégal ba tey lii mooy dellu ginnaaw dëgg kii war a mën a jug sax war ñoo mën a représenté bitim réew takk drapeau Sénégal la illa ay waay jële yàlla wax ñu lu ñu la def wax ñu ñu def ñu tuub jéggalu waye nimbal nimbal na ca fekk loxol borom nimbal na ca fekk loxol borom pesum kanam borom makoy fajal bopom dañu gëna yew te jëlé fi mbalit bi ñi mbalit sax mo leen tané mbalit sax des fois mu am utilité ci askan bi waye dafa wa no dina jeex de wallahi day jeex waye rek nañu gëna yew encore une fois yeen askan bi gën leena yew parce que li mënul continuer li mënul wëy li mënul wëy te ñun ñokay fajal suñu bop nak te day